man sama album bi war a génn le premier décembre papaam jour bi mu ci waree woy jour bi mu génnee àdduna la ci waroon woy maag sama mag yee àndoon en dehors de musique Wally sama rakk la te li ma yéene ñi may àndal loolu laa ko yéene <coughs> yàlla na ko yàlla may lu raw sax disque door parce que lu ne mën naa ma ah. parce que àdduna gëm-gëm rek la mais ci sama expérience bu ndaw ma am expérience nag bu bari sax disque door kenn du ko annoncé disque d'or man ci man laa wax de parce que def naa Island Record dix-huit ans maanaam les maisons de disques yi nekk ci àdduna bi yëpp xam nga jii man mën naa génn sama album aliloo mii gëm ma jënd mille CD kii jënd dix mille CD ileer jënd dix mille CD maanaam loolu amul ci tubaab yi maanaam il faut ñu gën a bàyyi xel sunu mag yi nga xam ne ne que jiitu nañ ñu aussi tamit ci musique ku mel ni Youssou Ndour ku mel ni El Hadj Baaba ku mel ni Ismaïla Lo donc ñooñu aussi tamit jaar nañ ci ay maison de disque yoo xam ne tey jii da ngay gis ne ne que tey jii su fekkee ne ne que même Grand-Mewa wa du ma tudd tur mais leer na ileer mi may wax ñun mës nañu jouer Californie am benn nit bu ñëw seet si Baaba Maal fi ñu nekkoon ne ko dañoo bëgg annoncé ne que da am disque door xamuma fu ñu ko fabriqué jour boobu li gën a tax ma naw Baaba Maal man ba fi may wax nii loolu bokk na ci ñu ñëw gis suñu maison de disque àndandoor ak ñun ñëpp ak yeneen mbooloo ñoo xam ne jóge nañ fu sori su ma juumul jour boobu Virgin lañ jël benn compagnie bu tudd Virgin ñi fees ci avion bi ñëpp ba ci karlo Santana dañ ñoo seetaan si ci concert boobu Baaba Maal ne ko man disque d'or suñ ma koy jox ci sama liggéey lañ ma koy joxe sama niveau dépassé na maanaam nit di ma seet si ne ma dañ lay jox disque door maanaam jour boobu dama ko naw ci kàddu boobu et eh, mais suñu sañoon nag ñun fii ñu dëkk Sénégal yàlla na xale yëpp am disque door parce que nag nit sooy wax da ngay wax li nga gëm ku sañoon fi nga dëkk ñooy raw ci musique te aussi yal na ko yàlla def yàlla mën na ko te yal na ko yàlla def yàlla ñu raw ñëpp ci musique lépp ci gëm-gëm la rek bon je pense que loolu nit ku nekk ak sa gëm-gëm la rek ko